ಇದೊಂದು ರೀ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೂರಿಗೆ ಇದು ಬಂದು ಪ್ರಾಜೆಂಟ್ ಹೊರವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಾದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಾಚಿ ಹೊರವಿ ಪಲಟೆ ಹೊರವು ಬಿಡಿಸಿ ಕುಚಿತ ಹಾವರಿಸು ಹೊರವು ಹೋಗುತ್ತೆ verifiable baax si say pot yëpp tànn nañ ko la ñu ngi di wàcc na surtout ñu signalé benn T-Max la waaw T-Max la bu noir T-Max bu noir Kenn ki sol leket, kenn tabu orange. Sonra birbirimizi sileceğimiz. Araba taxaw na lan gis waaje mais ni di ñëw borom casquette bu orange bi mais ni di ñëw day taxaw ci wetu portière bi maintenant araan naan ko borom oto bi wàcc da koy xaw a ibbiwaale bu wàccee rek day xaw a ibbiwaale léegi noonu mu taxawee ni gis nga ko wéeru après moom bu tëjee fii rek balaa muy actionné ci ci ci commande bi rek fekk na ibbi na porte bi gis nga ko na ci biir ci biir pharmacie maintenant xoolal kenn ki nekkoon ci ci scooter mu nga mu nga romb lu noonu mu nekk seetagum muub bi nga dinañ ko am ko wax nga dum koy déy après mu doon mu dem ci scooter bi day dem ci scooter bi pour xaar ko foofu voilà ñenn ils sont très dangereux ay sàcc yi vraiment yoo xam ne la day jël seen temps ci lépp romb nañ oto rek suspecté ko kuy gaare ñu rombante ñu taxaw donc vraiment gis nga accéléré nañ temps bi pour dafa xaw a jëlee durée xaar bi attente bi na trois minutes ñoo ko génn saabu rek daw daw na yéeg nañ seen scooter daw tey nag suba noora malheureusement amul immatriculation donc ren mu nekk image yoo xam ni tey ñu ñëwal Sénégal tey ji nañ toll fu moto bu mën di nekk moto bu mën di nekk moom immatriculation boobu boobaa danañ xaar bu baax fan la taxaw et que ku def ñoo teg fu moto dinañ la mën a repérer donc borom oto bi ci ginnaaw yi moo moo remarqué affaire yi après mu daw woote ci biir xool borom oto donc ñuy ñuy attirer attention par rapport ak fait yu mel nii xam ne dañ see à montrer que du ñàkk euh, borom def na plainte ku leen xàmmee ci image rek donc euh, nañu noonu am ñu leen xàmmee ci image voilà donc amoon na signalisation yu leen def nañ leen ko wan léegi. ko ñoom xam ne kenn borom liquette bu bleu bi ak casquette noir blanc